c'est baax na euh, loxo baax na. oh, oh, oh bon ñu ngi ñu ngi. nañ ko def benn yoon mu jeex. merci beaucoup merci maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp particulièrement sama njaboot sama jabar samay rak ak samay wayjur mais tamit di remercier bu baax. ndawu Sénégal particulièrement ñi ma àndal maa ngi remercier bu baax organisation de jeunes yëpp ak organisation de femmes yëpp yi ñu manifester seen soutien wax ji nag xëy na après dina gën a bari parce que fii yombewu a wax mais li ñuy jàpp mooy man tey génn naa tribunal bi li ñuy jàpp mooy man maa waxoon ni que Ousmane Sonko bu indee rapport rapport laa wax dégg naa leen ñuy naan ay rapport IGE lay la rapport bépp rapport bu mu indi muy bu IGE bu IGF bu OFNAC bu Cour des comptes bépp rapport bu mu indi man maa waxoon ni ko bu ko indee du ma ñibbi sama kër mhm. kon ma xam ne tooñ naa askanu Sénégal tooñ naa ki ma wóolu léegi nag waxoon naa ko bul renvoyer waxoon naa ko bul demander moom moo demander wax ji wax ji wax ji wax ji soriwul li muy woote jaru ko